salaamaaleykum mbooloo mi ay leen di nuyu di leen ziar di dalal sama gan yi macha allah di jégalu toogaay bu yàgg bi nag maa ngi koy jégalu bu baax di wax ne Pa du Fall moom la ñuy fas yéene jàppale ci kattanu yàlla di nuyu Cissé mi nga xam ne moo ko fi nekkal nekk nit ku baax ah di dox luy rafetal ak luy tax luy parti bi jëm ci kanam di wax ne Pa du Fall ndaw la buy soog a door nekk nag sama rak ndax mbokk am na nu muy doxee sax doo ko mën ngaa bañ a sonn ci moom mais dafa nekk rak doon nit ku baax ba noppi ñu li ñu bokk ëpp lépp muy Serigne Touba te ñun ñuy ay bi Serigne Touba kon ñun war na noo mën a jàppalante. di ko wax ne ci kàttanu yàlla ak mbaaxam damay def sama déclaration ñii ma àndal xam nañ ko mais comme yéen am na ci ñoo xam xamuñu ko dama koy leer dama nekkoon parti PDS doon fa liggéey ak sama famille bii ndax ñii samay famille lan di ci gis sama bopp ak ñoom ba ñu dem ba yàgg gisatuñ suñu bopp ah ma taxaw arrêté su ma arrêté nag ñi ma àndal ñëpp dañuy bàyyi ñoom ñu nekk nit ñu baax toog di ma déglu ba xam fan laa jëm fi ma jëm ma leen koy leeral tey mooy dama quitté ci parti PDS fas yéene dem ci parti dëgg ma wóor bu Pa Modou Fall. di wax ne su ngeen ko jàppalee du ngeen ko rëccu lii nag du loo xam dañ ci nax kenn. ndax xaaruñu ba élection jot ñu naan kaay leen indil leen fii fukki junni wala indi leen fii ñaari junni élection waajul bay ñëw dam ñu bëgg a ànd liggéey te yàlla tax ñu won ko li ñuy liggéey ndax comme ñun ay famille lan nekk jigéen ñu am jom ay femme battante euh, di di di di ñoo xamante ne nii bëgg nañ lu baax nangoo liggéey encore bëgg ku leen jàppale. ñu bëgg a jàppale nag Pa Modou Fall fas yéene moom it mu jàppaleñ ci kàttanu yàlla kenn du ci am gàcca loolu moom mën naa leen ko assurer ku ànd ak moom doo am gàcce waaw dina leen jàppale comme ni ngeen ko bëggee maa ngi koy wax nag mu jàppale ñu ci affaire financement parce que Touba liggéey amu fi te xale jigéen ñi nax nañ leen ci politique ba mënatoo wax nit lu mu gëm mais ñi xam na ne man du ma doxuma ci dara ñàkk fayda te ci lu ma leen woo rek fulla la ak fayda waaw su nekkoon sama mbokk te fulla ak fayda nekku fi du ma leen ci woo ndax liggéey na ma ñoom comme li Ndeye Samb wax kii tase nañ ba taay ci terrain bi xam na man xam naa fu ñu liggéey ba taay ñu bari nag ñëw nañ contacter ma man leen toog leen ngeen déglu ma di wax ne rek incha allahu rabbi jël nañ décision jàppale ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun nag ñooy waa famille am jom bokk àndandoo bokk ndey ak baay te liggéey wax tuuti jëf lu bari. te incha allahu rabbi bu ñu demee ba ci kanam paamu dina xam ne pa ñii yéex na jëflante ak ñoom waaye yéen it may dalal seen xel di leen wax ne di ngeen xam ne paamu du ñeneen ña fi jaaroon daan leen dikk ak di leen wax. di kontaan ci ñëpp macha allah di sant ñëpp na wax ji lu bari waaw wax ji lu bari maa ngi sant Cissé bu baax a baax di sant papa Thiam sama frère be nga xam lu ma nekk rek nekk na ci. yàlla dafa dogal tey màggal am ñu yebal ci benn daayira bi man ak sama sœur Ndey Ami Diop sama mag bu jigéen bee ñooy ànd di liggéey sama doom Ndey Asu xaar Ndiaye macha allah damay bañ a lim Asu Dieng ñëpp rek waaye maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax gis naa taxawaay bi heure su ma wootee rek da ñëw wuy si wante comme ni ko papa Thiam di waxee rek ñun danoo nekk benn ku taxaw ka ca des day taxaw dañuy àndandoo ñun ñëpp jàppalante fas yéene liggéey rek te yàlla tax te kenn nag du ko ci rëccu incha allahu rabbi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci ñëpp macha allah. maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi Ndeye di Ndiaye mi nga xam ne moo waral jataay bi Ndeye di nduur mi nga xam ne moo waral jataay bi di gërëm Moudou Fall di ko nuyu di nuyu sëñ Cissé mii coordinateur bi nga xam ne moom la Pape Moudou Fall teg ci diggante Mbacke ak Touba di ko jox wàccuwaayam bi ko suñu borom jox ñu àndandoo nag doon délégation bu Pape Moudou Fall di coordinateur bi Mbaye Diop man Adama Soog maire fii ci Touba di ko nag wax ci kàddu euh, soxna Bintu Mbacke mi nga xam ne moo nekkal Pape Moudou Fall fii dëgg moo wër jiite ko jigéen ñi fii ci Touba ma topp ci moom nag doon ndawam doon tànkam doon ay loxoom maanaam li ma bëggoon a wax lépp soxna si wax na ko ndax lépp lu mu wax ci Cissé rek dëgg la te Pape Modou Fall xam na kan mooy Cissé Cissé xam na Pape Modou Fall Pape Modou Fall li nga wax ci moom yéen ñi xay yéene sama mbokk jigéen ñëw fii tey di ànd ak moom billaahi du ngeen ko réccu ndax comme ni nga ko waxee rek campagne commencé gut kon suñ commencé dugg ci téere bii Pape muudu Fall ndaw la loo xam ne day dem bërigo la ci mbartal soo poussé mu dem kon damaa bëgg ñu teg ci suñ loxo te nun ñi nga xam ne ñoo ànd ak Pa Modou Fall fii ci dëgg moo wóor mun day na ñoo ànd ak Pa Modou Fall ndax nii nga def lañ def dañoo nekkat ci beneen parti waaye keroog ba ñëwee ci moom ba nëgëni Pa Modou Fall mooy musuwaar bi ñuy fompal suñuy rongoñ ndax dañ ñoo yàgg nax te yaakaar naa Pa Modou Fall moom day liggéey ngir Serigne Touba di liggéey ngir Cheikh Ibra di liggéey ngir jàppale ndaw yi ak jigéen ñi ku dégg na ko li muy def ci Sénégal diggante njaareem ak Touba yaakaar naa lim fi def ci ay financement kenn xamul nu mu toll lim fi defal nit ñi ci ay formation kenn xamul nu mu toll fas yéenee jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi su ngeen àndee ak moom nekk ci ginnaawam defe naa ne segal dina fi jeex jaay jën ak yu yu demee noonu dina fi jeex dina leen jàppale ci financement dina leen jàppale ci ngeen seen xale yi di liggéey ñi nga xam ne dañuy ñaw ak comme sama càmm ji pap kii nii ñiy liggéey rek ab réew bu ne leen di jàppale kon nañu góorgóorlu fas yéene nekk ci ginnaaw Pape Modou Fall soxna Khady Ndour ñu fas yéene ànd nekk ci ginnaaw soxna Bintu mi nga xam ne moo war fi nekkal Pape Modou Fall dëgg moo fii ci Touba fas yéene liggéey jàppale ko te du ngeen ko rëccu man de yéex na ma rëccu naa li ma teel a dugg ci Pape Modou ndax sama koñ ba ma nekk di yëngu ci développement yaakaar naa saas ma am na te Pape Modou Fall moo tax mu saasi ñun jigéen ñi daaru mën naan suñuy morom yéen fa dëkkal ñëpp de ñëpp a ngi bëgg a ñëw dëgg muur ndax ñeen ndax tiraanga jum nu fa defal ak yëg gum nu yëg ak fonkum fonk doomu aadama. jël siyaara bi nag di ko jébbal soxna Khady Ndour mii nga xam ne tey moom lañ fekk si fii ma ñëw fii nag euh, ci turu dëgg moo wóor bu parti Pape Modou Fall Pape nekk ca bopp ba euh, dëkk Jurbel gi di teel bi Sëñ Tuubaa comme ni ko soxna Adama waxe bi may ñëw ma ànd ak ci délégation bi soxna Adama soog mi toog nga xam ne tey jigéen ñi dëgg moo wër yi moo nekk vice président bi maanaam coordinatrice bi ànd ak ku ñuy wax Mbaye Diop mii taxaw yàlla def na mu jàmbaar ci parti bi lool ah, kuréel gi nga xam ne mooy panel bi nekk ci département Mbacké moom mais moo ko jiite muy ko xarañ ci liggéey bi ànd ak ñun ñëw fii tey ah, ñu ñëw nag indi nuyoo Pape Modou président parti bi ak ñi mu àndal liggéey bi ku mel ne Daouda Thiam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ah, ma ñëw fii nag pour taataan si déclaration bi nga xam ne soxna su tedd soxna su nangoo liggéey soxna soo xam ne nii ku ne xam na ko Touba yàlla def mu jóge ci parti bu mag boo xam ne nii ñëpp xam nañ parti PDS ni mu demee woon ci Touba ah, jëlee ko fi yombut. ay nit ñu mel ne moom ñëw na tey dañuy ànd ak Pape Modou Fall ci dëgg moo wóor pour liggéeyal Sénégal loolu dafa maa neex lool te dana neex président Modou Fall waaye dana neex Sénégalais yëpp man mii ngay waxal man naa ne parti PDS man maa ko def fii ci département Mbacké kon su ma demee ànd ak mu Modou Fall ñeneen ñëw ànd ak Pape Modou Fall ba tey jii soxna Xadi mi nga xam ne am doole la ci parti PDS fii ci Touba ak mbooloo mi mu fi am nga xam ne tey li xew-xew yi xew ci Touba tax na ba mbooloo mu mënu koo woote lépp waaye mu ne danaa def declaration ngir Modou Fall jaral na ma ko waaye ñi ma àndal jaral na jaral na ma ko loolu dafa rëy ci ñun. ah Modou Fall nag bis bi tey da koo fonk trop ndax jaraloon na ko sax jógee Dakar ñëw ndax bi mu yëgee ne soxna Khady day ñëw ànd ak moom dafa bëggoon a bàyyi lu jàpp ñëw waaye dafa am benn. maanaam lu mu fi war a wut si le le vingt et un bii di ñëw dafa war a dox ci wàllu parti bi ñun département Mbacké nag moo war a fiy ñëw le vingt et un bii di ñëw mu ne gannaaw dama fiy ñëw rek na soxna Khady def déclaration su ma ñëwee gën a yaatal liggéey bi waaye soxna Khady Modou Fall wax na ne yaa ñi nga àndal yaral na ko fu mu nekk ci Sénégal mu wàcc la muy def ñëw fekk bis bii tey waaw kon yaakaar na la ci liggéey bi tey wóor na la ci te bëgg naa ànd ak yow li nga wax nag ci wàllu financement yee jàppale jigéen ñi ndaw ñi loolu président moo ko ci njëkk a gërëm président Macky moom la àndal ci réew mi dañoo kay yaa yor parti mu yor parti waaye bëgg réew mi ak xam-xamam ak aw fii sëñ Touba jaaroon maanaam li mu digle mu jaar ci moo waral bi mu ànd ak Macky Sall Macky mënu koo bàyyi mi ngi koy jàppale ca la man Macky di ko jàppale ci man ci lim man waaye nag teewul moom dafa yóbbaale li nga xam ne tey mooy ay pexeem mooy ak jub ak xam-xam ak nangoo liggéey fii ci Touba biñ àndee maa moom dara ma duma ma diggee du wax lu ma nërut du ànd ak ku melut ne man maanaam tey mbooloo mi li ñu bëri bëri day am ñu may àndal ak ñu dul àndal nee na képp koo xam ne nii li nga def gëmoo ko wala koo xam da ngay bëgg boo waxee tey bu liggéey wax leneen Pape Modou Fall nee na mënta def ak yow nee na du wax nit bukk lum mu narut am ne ko sëñ si Mbacke waxoon nee na wax def yàlla rek ko mën waaye wax looy nar moom ku ne man na ko Pape Modou Fall ne lu may wax dama koo nar. ñim ñim jot a xam leen teel nag te man ma jiite coordonnateur départemental ñim jot a xam leen teel kenn ku ci bëgg a dellu fa nga jóge woon amut. niñ koy waxee rek Touba ku fi dugg si nekk bu ne woon nga dellu fa nga dëkkoon nga lànk waaye Modou Fall ku ko mos bu ne lee bàyyi ko dootoo ko bàyyi. Adama wax na ko léegi ngeen dégg man mii li may def ci dëkk bi nii ñu di ko gërëm. mën naa ne Modou Fall ma ci jàppale ndax politique naa ñeent fukki at ñeent fukki at politique naa ko te lii ma man nii mënu ma ko woon euh, jëmale wu ma nag ci sama bopp waaye dama koy jëmale di ji ba ñëpp tàllal ma loxo waaye Xadim yi bokk na ci ñi nga xam bëgg naa ko ci sama wet mu ànd ak soxna yu tedd yi ma àndal ñu liggéey tuubaa gépp doon benn ñu àndal jàppale Pape Modou Fall. Pape Modou Fall nag ma jàppale Macky Sall ci réew mi loolu bu kenn wet weddi ndax coalition la bokk yaakaar la. waaye ñun gëmuñu kenn ku dul Pape Modou Fall Pape Modou Fall nag fa ñu jëmee bu fa gisee njëriñ te njëriñ loolu war a dellu si Touba dellu si ci jigéen ñi ndaw ñi su boobaa bu ñu cay yeggee loola moom beneen mbir la waaye daal dëgg moo waru lañ nekk Pape Modou Fall lañ àndal moom la ñuy déglu moom it ñun lay déglu te liñ bëgg mooy jàppale xale yeeg ndaw yi bu ko defee man ma tàll ko loxo bu ko deful woon it du ma toog fii di wax ndax ànd na maa keneen ku du Modou Fall te dama ko mujj bàyyi ku bàyyi nag ay président bàyyi ay ministre bàyyi ay directeur soo ñëwee ci Pape Modou Fall di ko jàppale dëgg gi mu nekk tax ma ànd ak moom bis bu bàyyi woon dëgg gi rek ma bàyyi ko te soxna si wax na ko léegi sama mbokk la ñoo ñoo bokk nekk kër Sëñ Blaat moom mii xam na xam na ko xam na ci naa moom kan la ak fa ko nit ñi teg xam naa ko wan maa ngi leen di sant di leen gërëm de sant presse bii fi ñëw de sant ñi ma àndal jógee ci ci ci ci Daaru Marnaan ñëw fii ak Jannatu Mahwa Mahwa de sant ñi ma fekk ay jigéen ñu tedd ku leen xool rek xam ne ay liggéey liggéeykat ngeen ku leen xool xam ne lii maanaam du ngeen ci gan su ngeen wëlbati ko bàyyi fa ngeen nekkoon ñu ànd ak ñun nag dañ leen téye bu baax a baax a baax te danañ fexe ba Modou Fall dana leen déglu te dana leen bàyyi xel kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.